ayca mbokk yi di amaat mbégte rek bu baax a baax a baax saa su ne di jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi nu ñu koy defee ak yéen rek sa su ne di dalal ay ndaanaan waaye tey ma toog ak ndaanaan doo xamante ni dootuma ko présenté ti sénégalais yi ci taxawaay bi nga xamante ne moom lay taxawee ci réew mi waaye aussi yàgg a bégal sénégalais yi muy suma frère Pawlish Mbaye sénégalais nag géej ñoo gis ma am ak moom jotaay ah waaye ni ñu koy waxee rek dañoo ma ak moom dañoo meroo woon dañoo xuloo woon ah waaye ginnaaw ay jàmm ni ñu koy waxee man ak moom ñoo far euh, yàgg nañu ànd aussi di bégal ñi nga xamante ne moo di sénégalais ni ko noonu nag tey ma dalalaat ko ñu fas yéene waat seq ak moom li nga xamante ne moo di waxtaan waaye di xamal sénégalais moo ma tooñoon moo tax ñu jote woon ah ma am mbégte frère ci am ak yow jotaay baal rek nga dégg mbokk yi. waaw bañ ak ñoo dëkk te des fois ñu laale nit ku ne day juum te nit ku nit nit la. Mm-hmm. des fois nga juum des fois juum. te xuloo du ñàkk ci nit ñëppay xuloo xuloo du dara ci àddina mm-hmm. waaye xuloo bi ku ne xam na sa bopp xam nga yaay kan man xam naa maay man maay kan tey xuloo du yow maa yow xuloo man site bi laa xulool woon site bi site internet bi laa xuloo woon. site bi xuloo bi laa man. waaw mais non site bi noonu pas pas pas jëmm ji jëmm ji du xuloo yow parce que ay xarit lañ mais site bi laa xulool te xuloo site bi mais xuloo ñu man ak yow. xuloo ñu man ak yow. problème àdduna. ku ma ku ku xuloo man yaa ma tooñ wala ma tooñ la rek man man kenn war maa toppee dara ci àddina parce que man waxoon naa man do dof laa de dof laa bu takk ma takk jabar ngeen foog nit laa man dof laa dëgg la noonu damaa bëgg a def di cliquer parce que dama am tig boobu léegi ah, léegi dama am envie di cliquer parce que tig la ci man léegi. mais nag da ngay man lii ma gën a neex parce que damay damay tiitaru des fois damay xool xool image loolu loolu si tiitaru la bokk. ok damay tiitaru moo tax des fois ma sama téléphone di dóor parce que tig la en fait. parce que nit boo amee feeling da xool ci portable ci solom ci physique am ci ati xoom ci réewam ci mignonam ci jantalam ci xewam ci soloom ci jekkaayam ci njoolaayam ci taayam nit nit day profité ci yooyu nit boo amee benn folie muy réew attirant da ngay jéem am tey pour tikki téléphone. soo lii dara waaw instant bi damay euh, hmm, damay charmer sama job. sama bopp sama job laay charmer moo tax moo tax may def moo tax may def boobu tik tak tik tak. waaw moo tax may charmer sama job waaw Adevasel nag pour ñu waxtaan ci actualité yi nga xamante ne jot na jàll ci semaine bi sénégalais yi dund ko bi nga xamante ne nag moom nañ ci dooree muy combat bi nga xamante ni amoon na dimanche passé ci diggante euh, Jokkel ak ki nga xamante ne moo di Madji Madji dootuñu wax Papa Boy Djiné ndax changé na tur boobu noonu mu nekk mbër boo xamante ni carrière gis nañ ni muy doxee sénégalais yëpp nag am yërmande ci moom euh, keroog ñëpp ko yéene woon ndam mu ñëwaat am nuñ koy waxee yàlla mayaat ko li nga xamante ne moo di defet mu def ko ni mu daan defee bi nga seetaanee combat bi ñu daanaat Papa booy Djiné nakk nga ko yëgee Pawlish. waaw di ko di ko ma sow ndax xam ne nit la rek te majj majj benn defet la am. mu mm. defetam bii. papa booy génn war a wax ay defet màjj na nit ñi xam ne intelligent màjj màjj benn defet la muy defetam bi bërkitam bi amul dañ ci ñeenti def amul juróomi defet màjj màjj la tuddee pom te màjj benn defet te mooy premier combat am ci arène na jàpp ne benn defet la na génn papa booy génn bi ci loolu yàgg na na dem màjj màjj benn defet la am dama bëgg sénégalais yi intelligent lamb ji nan la tudd màjj màjj la tudd ñaata doon ko daan mu ngi soogee daanu ci turu màjj màjj ah, kon na sant yàlla na intelligent. yi weesu du yooyu Papa lañ daan. nii nii màjj màjj lañ daan muy benn benn defet la muy defetam bi muy defetu màjj màjj boo duggee ci Google dugg ci ci ci ci ci ci Bible dugg ci leneen ci YouTube dugg ci Arène Nationale da ngay ñu ne màjj màjj benn defet jokkee la ko daan màjj màjj la euh, Papa Boy bi dem na bu yàgg ndax xam ni benn defet la am ci làmb bi muy premier combat te ki ko daan gënu ko ki ko daan papa gënu ko ki ko daan ay julli la julli lañ du dëgg. Mm-hmm. dafa ne dafa am yaay dafa am papa. kii ko daan boo daan war na ko daan dafa entraîné lekk ba suur mm-hmm. entraîné ñu yàpp ko pour mu dën daan bëri yi papa nit la dañ ko war a daan. mën tafee su doomu na doyloo sunu borom du sëriñ du gàllaaj du lenn suñu borom a ko daan du physique du doole papa gi entraîné. lekk papa gi julli. papa def ay galaaj yàlla mooy daan ci àddina. daana bi mu daan nga xam ne suñu borom rek la. doon nit ki moom kaaw yàlla la. kon màjj na jàpp ne benn defet la am. te ko yàlla mayee daraja. ni ko yàlla mayee mbooloo na gëm boppam ne màjj màjj mi ngi soog am defet mi premier defetam ci làmb. ndax màjj màjjal lañ daan muy premier defetam papa nit la na yërëm jabaram. Mm-hmm. ndéeg rek laa yërëm. nga am yërmande ci moom. parce que day bëri juróomi combat léegi day bëri juróomi combat lay bëri. ay noonam. Hmm. site internet bi. Papa Boy Djiné. ay mbokkam ay mbokk yu jëkkëram gaaf na da nga ko koy gaafal. Mm-hmm. te yàllaay xool ndam yàllaay may ndam. papa ba muy dugg ci ndéegi amul woon kër suñu borom may na ko mi ngi tabax kon ndéegi amul gaaf. Mm-hmm. mbooloo bi topp papa mosu ci àddunaam man su ma xamee papa ndéegee ko. Mm-hmm. papa booy jinne bëri na ba kenn xamu ko ci àdduna ndéegee moo tax ñu xam papa booy jinne te bu papa booy jinne di di bëri ndéegee daje nañ mu jëndal papa boo jënd ay ay protéine di ko jëndal lu muy war a lekk di ko jëndal li mu war a naan di ko jëndal box di ko jëndal loo xalaat Paris lu mu fa liggéey papa boo jëndal la koy jàppale pour mu gën a avancer kon amu gaaf si diggante moom ak moom. mais naka déggee à chaque fois bu papa daanu ñu jëlaat coow lépp teg ko ci kawam. parce que nit bu koy def nit ñooy ñooy imbécile ñu ñooy ñooy ay doomu xaram normal. Hmm? jigéen la ndéykee sëy war a sëyee. Hmm. ndéykee warta jooy ci àddinaam warta am lu ko metti ci àddinaam ci àddinaam wax xolam warta ñaaw ci àddinaam parce que sëy na fi war a sëy suñu borom may ko muy sëy ak ci anam bu rafet papa tey fu mu egg ndéegee moo ko fa eggal tey papa fu mu toll ndéegee moo ko fa tollal papa joxu ndéegee kër joxu ndéegee château joxu ndéegee oto joxu ndéegee limousine joxu ndéegee xaama ndéegee dafa toll ci sëy bu sëy papa tey yàlla rek tax ndéggee fi mu toll ak ndiwa fi mu toll war naa séntu leneen mais xoolul papa li mam xool li mu ñàkk mi ngi koy muñal di ko sëyal ci àddinaam ndéggee leen la war a jooy ci àddinaam mm-hmm. muy leen yàlla na ko yàlla may bant loolu rek la la war a jooy ci àddinaam mais war ta jooy ay daanoog daan nañ papa war na daanoog déedéet suñu borom mooy xool li ko nee mu def mi ngi sey ba ba tey amul bant te yàllaay joxe bant yàllaay maye bant loolu la war a jooy ci àddina ba suñu borom may ko bant te lu ko yàlla maye mu gëmloo ne ko suñu borom moo ko may kon yàllaay joxe ndam yàllaay joxe ñàkk du sëriñ du gàllaaj du physique yàquñu papa bu nga ko yàqu papa du lekk du naan papa du xam lu neex papa du tëdd fu nooy papa du taal du taal kilim papa du bàqu bay tuus papa du dóore bu ko bàqu papa bu ko yàqu papa loxo yi day làggi papa day dotom papa ay bëtam du gis papa du mën a sax saw looloo yàq yàq boo xam ne yaa ngi entraîné yaa ngi tuus yaa ngi bàqu lekk yaa ngi naan bu la daanee xam nga war a jaar hmm. boo booy tuus xam nga bàq bi nga war a fecc sooy léewtoo xam nga fi nga war a léewtoo léewtoo ci koñ bi si mbër taxul nii ngay léewtoo côté côté bële ci mbër bi ngay léewtoo ba nga doon mbër ki mu kaaw yàqu ñu papa yàqal nañ ko yàllaay maye ndam yàllaay joxe ndam du sëriñ du dara ku topp sëriñ sa diggante nit ak dina yàqu kenn yàqu papa suñu borom ay joxe ndam mais kiy bëreel jokkeel nit bëri woon ay defet joxe jokkeel am ñaari loxo. jokkeel am ñaari tànk am ñaari nopp am am ñaari ween. waaw ah léegi man dama amul droit daan papa. am loxo am nopp am tànk am ñaari ween léegi amuñu droit ku nit ku ne li jokkeel am loolu papa am kon amuñu droit mu daan nit ñi bàyyi li yëfin naa fexe di def ndey kay. jig na jig papa gi mu jig papa moo moo tax ñu xam papa nu ko xamee tey ci àddinaam moo tax ñu xam papa ndéegéen li war a jooy ci àddinaam yàlla may ko ko na toog muñ xam lépp dina ko fekk ci suñu borom may ko bant xolam bi gën a sedd ay daana ñu daal amul chance affaire àddina lii day jeex du dëgg mm-hmm. ndéegéen nit la te nit ku la nit ku xam boppam la nit ku am colère ni mu toll ñu tim jabaram bi di ko lu ñaaw ci internet bi te mu mën ko faj ci benn jour bul baale bul jaay affaire yu mbër parce que ñu ngi lay yàq koo ci gis papa dimbali ma ngir dem Rasulullaah nokk ko nokk yoo xam ne bu ëllëgee bu waxati caw dina xool lan la xale nga costaud physique volumé am droit am mais am cuisse am tànk am nopp koo ci gis ay ñeentoo yëpp ay góor lañ jigéen ñi baal leen mais góor goo ci gis mu wax ci yow lu ñaaw mu nekk Sénégal gi jàpp ko mu ñëw nokko nokko yu loon nokko papa ngir ne Rasulullah nokko nokko leen nokko yoo xam ne ñu xam nga nokko nit nokko nit jàpp ko mbéj ko te mbéj ko ba kanam gi wàcce nga summi ko nokk ko ay yat ba mu nelaw boo liggéey dootu ñu la tooyati. monsieur ko nit bu góor bu tooyee góor góor góor da koy faj. barki salaatul fatiha man ku ma tooñ baa ko fayal sama bopp ni ma jàppee damaa xiiboon tey ah damaa plus damaa asma mais ku tooñ dinaa fexe ba naan jël sama pompe pompe ko sama asma bi calme tuuti ma ndoq la parce que man noonu laay taxawee ku ma tooñ ma ndoq la man noonu la mel sama àdduna mais nag nga gisee ki nga xamante ne mooy sëñ Bada ni mu def Ndeye Gueye dugal ko ci live waxuma ay waxam parce que du ma wax ay waxam merci ma wax ay nekk ci naqar nekk ci métit nga koy tooñ di ko kokkali. man damaa naxee deret du ma dugg ci biir privé jàmbur man damaa naxee deret papa lay conseillé papa koo ci gis muy wax sa jabar lu bon di wax sa jabar lu ñaaw ngir tamit Seydina Muhammad fekk ko fa mu nekk bàyyi ko mu génn noq ko noq yoo xam ne bu ëllëgee mais bii àdduna bi moo toll foofu koo tooñ di koy noq ci internet moo amatul xuloo wax ci ni lu ñaaw jonne dañ déedéet amatul hmm. ba mu génn ci bu dee góor la nga jàpp bakkat jàpp ko ndox ko ndoxee jël bant bu dugg te roof ko ci taat wi ba mu xam ne boo liggéey doon la tooy ci àdduna non te xoola te ñoom ñëpp si pour roof seen taat gën a yomb seen taat jël ki bant roof seen taat yi nokk leen nokk leen mos papa xale la mi ngi bëre papa ji entraîné papa gi def lépp mais lu tax bu ko daanee ku ne di génn dafa ñàkk jom ak dafa war a bàyyi wala dafa muy bàyyi bëre daanuñu papa booy jinne benn yoon lañ ko daan muy première défaite tam ci làmb muy màjj màjj na jàpp ne première défaite tam mi ngi nii na gën a góorgóorlu gën a entraîné hmm. te jour ba bàyyi ndéegee ci ngay daanoo ba sa àdduna yàqu bu la fexee ba nga bàyyi ndéegee fi ngay nit ñi dina la bàyyi hmm. àqam dina la dal combat doo ko amati bu boo amee combat ndéggee tax parce que ñu bëri ndéggee la lay rusee ñu bëri ndéggee lañ koy xoolee parce que ngi sëy fi mu war a sëy muñul na la joxoo ko oto joxoo ko biis joxoo ko vélo joxoo ko moto mu booy li nga am ak li nga ñàkk li nga ñàkk ñëw di la muñal sëy ko sëy la ñëw sëy la moom yàlla dimbali ngeen am bant bant yam barke ngeen sëy te yàlla rek tax ndéggee jigéen la dafa am ay nawle nga daanu sagaloo ko. nga daan sagaloo xam lu koy sagal nga muñoo koo sëy ak moom bu ko dóor bu ko xoox ju ñaaw bu ko xool xool boo xam ne boo léegi xolom dina ñaawal leneen leneen ndege lii ñu koy def rek war ngaa gën a tax gën ko jàppale. waxuma ne ko góorgóorlu ci làmb ji parce que daan moom yàllaa ko yor ak daanoo tey boo entraîné bi ko dee. keroog gis bi mu daanoo am benn tiktokeur boo xamante ne dafa def sorte. keroog moom papa euh, am na benn tiktokeur boo xamante ni noonu la def génn def sortir di xam ne ni dafa am nit ku ko woo xamal ko ni li dal papa moom moo ko ko teg ndax na papa fàttaliku ca stade xaw ma fan moom papa téye na ko fa dóor ko dóor yi métti ba mu dem bàyyi fa ay dàllam ndax nee na loolu métti ko fii ak ñëwul ba ci moom jéggalu ko du jóge ci daan day gën bu demee ci waajooy bu demee ci dégg na daanu kon kon waajooy defoon ko ko waajooy ngeen def sorti kon waajooy dimbali ko defar ko ni mu mel ak waajooy mu xool boppam ni mu mel yàlla mooy daan yàllaay yàllaay xool li ko neex mu teg ci doomu aadama nit lu yàlla mënu ci nit amul amul amul amul def def Modou Lo mi ngi takk deful dara te mi ngi daan nit ñi nañ bàyyi li ñu def seen bopp yàlla may ndam mm-hmm. yàllaay xañee ndam mm-hmm. yàlla mooy joxe ndam yàllaay xañee ndam yàlla mooy lépp ci àddina. Mm-hmm. waaw kon nit kooku na xoolaat boppam. ki nga xamante ne moo di Ndeye bi ñu ko laajee moom dafa ne bu doon sagoom papa day bàyyi bëri. su bàyyi bëri fu ñuy lekkee. bàyyi bëri papa mënut a liggéey mécanicien. mënut lu muy def. su papa bàyyi bëri lan lay def. lan lan ma yoon Ndeye Gueye kii woon de. giir ay géwél lañ giir yee daa xawaayaan géwél yi tëgg yee daa xawaayaan yi joolaa yi ñoo daa xawaayaan géwél yi njaago yi amatu ci àdduna am la yaakaar dimbali su su bàyyi bëri papa la lay def Europe amatul dara su papa bàyyi bëri gën koo sa jëkkër koy dooleel bébé gën a la bëri gën la yokk force bi gën a la am jàmm gën a la bëri bu mu ko wax bu mu toog bu mu wax saali saali góob ma bëgguma nit ku ragal ma ragaluma ah ah. ragaluma yow man ragaluma. waaw non yow man ragaluma yow. non yow man ragaluma yow man man ragaluma man man ragaluma xaw ma nu ñu ragalee yow. tu n'es pas peur. non man ma ragaluma dara dara ay naaka gi fa fokk ragaluma dara yow. man du ragal moo tax bëgguma nit ku ragal barki salaatul fatiha man nit ku ragal dama lay jéppi yow damay jàpp ne da ngaa def suñu borom non ragaluma nit ku dox ci àddina yàlla rek laa ragal ci àddina nit ku ragal man damay dama naan non mais kii est-ce moom nit la yàlla ko dogal parce que yàllaay xool li ko neex mu def ci jàmm nit yoru nit yoru nit de. Mm-hmm. dëgg la de. laay <laughs> nit yorul nit. mos naa de benn mag nee na ma ku ne maa yor sa wërsëg boo ko mënee saaga saaga ko. nit yorul nit yor ñëpp yàlla bu lay jox ci nit la ko jaay nit ko jox la ko bu ko bu la ko nit ko joxul day arbis am taab wala mu génn àddina nit yorul nit suñu borom a yor nit moo tax non non putain de merde yow ma ragalu ma. give a fuck ma ragalu yow. man su ma demee ba ma jël gant doo ko sa bopp yow man du ma ragal ay nii wa give a fuck ma ragalu ma yow putain de merde. man ragaluma ne papa yow man nekkuma nit kuy ragal di tiit gi njër ki di non mais putain de merde awma lu may ragal am neuf give a fuck man awma lu may ragal I don't care laay dund yow pour ragal nii non ay go shit waay ragal ma ay fokk looy conseil bu mu ragal dara noo nay pawra eh. c'est capitaine non bu pawra bu ragal parce que jëboono yàlla moo gën a baax ñëpp ci àddina bu ragal lenn ñeente anglais moo wax la ko ci anglais. waaw ay never give a fuck bu ragal ay don't care amul la ragal yow. wax ko ci arab maa lii lan la. waaw arab wax loolu de maa non lii lan la. kii mooy bu ragal. bu ragal ci arab mooy lii lan la maa lii lan la bu ragal ay kii non mais bu ragal. nan la pardon. chinois nan lay waxe bu ragal. ay waa si ay noo loolu yow nekk yow Sénégal yi xamuñu la de. de papa boo ragal dama lay bàyyi. boo ragalee barki salaatu boo dee ba tekki sa ngeen ma ma bàyyi la àdduna ak àllaaxira bu ragal. na bëree na nga xam ne yàllaay may ndam yàllaay joxe ndam képp ku la wax bàyyil bëri jàpp ko nokk ko ndege bu la ko waxee jàpp ko nokk ko ba mu nelaw. Eh. barki salaatu loo xam ne mooy mooy yow mooy sa teraanga mu la koy bàyyiloo. non nee ko bàyyi fecc yow ba nga bàyyi waayaat bu la ko waxee jàpp ko teg ko ci néeg bi nokk ko ko waxal tuub naa ko ci jamono ne ko waxal bu bàyyi bu bàyyi nga nokk nokk yi mel soo bàyyi bëri def yow. non bu bàyyi. Ah. bu bàyyi bëri de non yow bu ragal te bu ma ko ni ko ragal. soo ragal soo ragal seen noonu da lay retaan man est-ce que damaa ragal yow. déedéet ngay bandi. est-ce que damaa ragal man rek maay ànd cay may ragal tey ba tey maa ngi xew soo bëggee yëngal dëkk bi dama ko yëngal ba dëkk bi yëngu loolu man maa ko mën a def ci àddina soo bëggee baissé tension dama koy baissé te temps yi damaa jënd conseil léegi damay reprendre man du ma ragal I give a fuck yow. putain damn it I ja non mais I don't care ay ragal amul ci dëgg ragal amul. ma putain de merde arrêté fa Jean waay. macha allah dégg nga loolu moo yëkkati ci ki nga xamante ne moo di papa booy jinne ginnaaw kàddu yu am solo yooyu ñu koy encouragé waat ah, di ko wax ni frère àdduna nii la tolof tolof ak bànneex ñoo ànd te métit boo gis rek bànneex moo ciy topp li des sa kanam yal na la si yàlla defaral xéewal bu baax a baax a baax Pawlish beneen actualité boo xamante ne bëgg naa ñu taxaw ci tuuti waxtaan ci muy euh, xewu mama Aziz gis nañ ñi euh, nga xamante ni tey noonu la xewee xew bi sénégalais yëpp kontaan ci nag waaye tamit am na ñeneen ñoo xamante ne ay sénégalais ci. danoo ñàkk bëggul ko am ñi ci bëggul danoo ña danoo ñàkk bëgguñu nit ko am Aziz li mu def moom nga bon. Mm-hmm. nga baax. nga ñaaw. Mm. nga xasaw nga set nga tilim nga gubba nga muuma nga laaj Aziz amul lenn lu mu def luy parfaitement raison Aziz dafa def li mu war a def. Mm-hmm. Aziz dafa joxe fi mu war a joxe Aziz dafa doole fi war a doole Aziz dafa taxaw fi mu war a taxawee muy papa doom la yaayam génn àddina. Mm. bu ko bàyyee tuuti xelam nekk ci yaayam. bu ko soree xelam xeltu yaayam moo tax mu taxaw Aziz toppoo doo ko ba bat koy seetal Aziz da taxaw léeg laa ñaa Aziz na may doom tuuti nag doom am jàmm parce que ni nante bu mayee doom day xalaat leneen waaw xam naa Aziz dafa fiir moo tax maa fu mu dem la koy mm. ko topp. rek. fii la ko ñu ko toppee foire. téere bi sëy na aji mun ko ànd ak moom aji lekkandoo moom laax lekkandoo cere di foto na doy na na doy nante nante bu mayee jabar danga koy bàyyi nag ndax xel may rëy nante bu mayee jabar da da koy surveiller mais mënatoo ci dara maye nga ko maye nga ko fi nga ko war a mayee ci ëttu bàyyi laay si di nga ko maye hmm. ci ëttu laay laay alasaan nga ko maye ci ñoo xam ne fi nga ko mayee falaa takkee jabar man ak ay voisin la ak voisine barke Rasulullah maak sama maar ñoo am sant ci àddina parce que bàyyi mooy seen maam ñoom ñaan ñëpp jaara bàyyi laay maamam. moom jëkkër maman ay cousin ay cousin cousine direct lañ. manit la déggoo manit la maman moo bëri wërsëg manit tamit ma romb bëri ay man manit ma romb romb wërsëg ay voisine ba doom laay matal lañ koy wax man soo amee doom laay yàlla maa tamit na gën a sant yàlla fi mu séyee la. si mu seeyee moo moo gën alal fi mu seeyee moo gën teraanga. fi parce que ëttu bàyyi laay si di la seeyee. Hmm. mais na asi noppalu nag xam ne maye na ko ne ci génn loxoom mais nante bu mayee jabar xelam day ñaaw lu ne da ci kii xolam bàyyiwul maman pour maman dem parce que cofeel ak yërmande gi mu koom ak bëgg ko mais da koy bàyyi parce que yaa ko maye ba ngay takk kii nu mu Aïssa Rasoul noonu la meloon kenn xool yaayam topp ko mais da ko mujjee jël bàyyi ko bàyyi ko nag bàyyi sa doom Aziz da Aziz da topp rek ay ay bu sa dem mag Aziz da koy topp rek mënu ci dara mais il faut mu dem parce que xolu doom la taaw yaayam génn àddina nga ñeewantal ko yërëm ko Aziz musuma xam ne dafa intelligent hmm? barke Aziz foogoon naa ne xam lu nekk ci xelam poids diwlin zador oto tëgg làmb ki laa fogoon moo nekk ci xelam mais dafa ginnaaw ginnaaw boo xam ne dafa am doole. Mm-hmm. ci mel ne Eliman Eliman Lam Baye Abou Lam Seri Sala. Mm-hmm. Seri Sala Baye Abou Lam. Mm-hmm. tu dëgg Seri Mati. xam nga ñaari jabar boo ko amee ñaari jabar yu déggoo Mati ak Sala ak. Euh, euh, saw ak ak mati sala saw mati xam loolu ñu ko jig lañ ci ci ñu ko baax lañ mosoo leen gis ñu nekk mm-hmm. kenn gënu koo baax mëti pare waxi nopp Aziz intelligent mm-hmm. tafu ci wetam taf bi du alal mm-hmm. du xaalis du jantal du am doo tafu ànd ak nawle te nag ma xamal la loo xamul tey ma wax la ko li Aziz liggéey la élément di liggéey. te mbindeef xam ko booy xool Aziz ak kii dañuy seeni biir liggéey xarit amu ci dañuy liggéey normal. premier adversaire am ñoom ñaar la te duñu liggéey mais seeni i yërmande ak seen i xol bu Aziz amee client bu ko amul danaa ko demal ci. Ilimaan bu Ilimaan amul danaa ko demal ci Aziz nga xam na loolu xarit la àndandoo la. Ilimaan mm-hmm. nekk nit ku humble nit ku baax nit ku nit ku discret nit ku effacé nit ku xam mooy kan man foogoon naa ne xel mi mu yor billaahi wallaahi Aziz ay maman képp kuy séy rek jaa jàppal ñaanal yàlla ñu séddale la ko. Mm-hmm. waaye man ne xel mi ñëwut. ndekete Aziz a gën a intelligent ci àddina man damaa foog ab dof la parce que Aziz yi yëgul dara ci yaram entraînement la xam diwlin ànd ay sa sinap ànd ak jabar ji miss sinap loolu laa foogoon ci àddina yore oto bu rafet kese mais li mu seedeel jaw yaayu mama bil la teel yaay barki dem la yaay mama tàlli benn yoon ci ci biir ba melam barki alxuraanu karim na nit ñi ñaan yàlla si jëkkër seedeel li jabar seedeel na ko seedeel fi ko war a seedee ci àddinaam mm-hmm. Mm-hmm. Aziz ba mu jooyee damaa jooy. te man Aziz xam wax su Aziz ñett yoon laa xam sa gis ci àddinaam ak ni may sob ñetti yoon man xaw ko. Hmm. ñett yoon lañ ma sa gisante mais li ma gis ci capacité ak li ma gis ci parole am man bett na ma bett gravement billaahi wallaahi li mu seedeel jabar ji sama àdduna dafa tukki. Hmm. Aziz yaa baax waay. billaahi wallaahi bett na ma loolu nag foog naa ne xel mi ñëwut. mais yi nga xamante ne dañoo jàpp ne puukarewu la wanewu. nit boo amee sa doom ñu koy maye teral ko. du puukare ñi ñàkk ñi rek wax loolu sa doom yaayam génn àddina yaakaaru kenn boo ko soree mu xelam nekk ci yaayam taxawu ko te taxawu na ko fi ko yaayam da doon taxaw ci àdduna Aziz mooy yaay foofu mooy papa taxawu na ko fi mu ko a taxawee na nit ñi wax ñi bon ñee wax ñu soxoon ni ñi mënul dara def seen doom yi mooy wax mais ñu comme teral doom barke salaatul alnabi ngir comme caat nag teel a doom billaahi ki nit ko ñàkk yaay teel a ñàkk yaay xale bu ndaw nga dugg ci premier sey nga dugg ci premier xamoo daraay sëy sa papa bu effacé woon rek mënoo fexe ba doom am du yëg yaayam tey maman yëgul yaam yëgul kii lenn xolam sedd na parce que papam taxaw na ko fi ko yaayam taxaw Miss Ndiaye tamit nekk nit ku baax nekk jaww ju baax nekk ku ëmb nekk ku yërëm ay njabootam. man lenn laay wax Aziz naka te Aziz doful dofaalul man tegoon na Aziz temp non mais Aziz foog naa ne jàkk tabax la xam tabax ay margo yóbbu ay ay ay naag loolu laa foog loolu la xam ci àddina mais naka te c'est trop intelligent. Hmm. moo tax moo tax nit ki rek moo tax moo tax Elimane laa xam nga Aziz nag. Hmm. Nampalys moo mag Aziz dañuy waxtaan xam nga des fois xarit dina waxtaan. xarit ak xarit dañuy waxtaan. Mm-hmm. mu ne ma Eli su su meree day ñëw day ñëw ne ma tey sama tey sama kër yëngu na. Ilimaan laam woo Miss waan mu woo Aïcha ne ko xol bi neexul Eli ne ko maman ne ko xam naa fi ma ko war a jaar Aziz problème biir la biir bi boo koy laal. ak asi an attanu li soreya mi noppam yi. boo ko laalee mu may la juróomi at ak juróom-ñaar. gos bi nopp gos bi am problème. fii. ak fii. Aziz attan Aziz ko ci àddinaam Aziz entraîné gisoo entraînement bii lay entraîné fii ak fii Aziz dem na ba ba ba dem entraînement nopp attanul fii ak fii moom problème mu fii la ak fii. lu lu Aïcha bëgg ci moom wala Miss danaa bébé boo fi pour ko fi buy tegu fii rek daal amul benn problème loolu def baax na kër gaa yi noonu atul fii fii moom mooy gën a nekk point faible ci àdduna maa xam ne Aziz point faible am foog na te dafa intelligent moo tax nee nañ li français naan euh, sous chacun sous charge chacun nit ku ne ak nitam nit ku ne ak xaritam mooy toro boo toro ko moom ilimaan ay xarit lañ te xarit bu sérieux xarit bu seetee ilimaan xam nga foofu may point faible moom ay suufu tànkam kenn du ko laal daa mas ki asma ilimaan sol tëddék rek lay kii sala te dañuy waxtaan xam nga waxtaan des fois xarit nekk ci biir mag ñuy waxtaan mais man da bu bu ilimaan defee ni tànkam sala day ñëw dugal loxo ah xool fii ci ci suuf tànkam ini kenn du laal gisoo day waaxu rek waaw du dox ndànk attanul fii attanul suuf tànkam mëtti nee nañ ma Pawlish ili kenn kenn du laal suuf tànkam moo tax luñ bëgg moo tax kilifa yi am nañ foo xam ne boo leen fa jàppee ba nuñu de mais nit ñoo xam fu leen jàpp. damay seen jabar damay waxtaan ak ñoom waxtaanu nit. mais li ma mën a xamal Aziz daal nit ku baax la. nit ku baax taxawu njabootam la. ñi ko taxaw yaay li mu wax ci yaay maman sama àdduna dafa tukki. xool yi poto yi. billaahi wallaahi man xaw ma ne dafa intelligent de xaw ma ne dafa muus billaahi wallaahi des fois nga gis kilifa yàlla may ko teraanga doom xel. mais suñu borom may na ko teraanga mais daa am xel li mu wax ci ay maman xaw ma nu ilimaan am na xel mi xel mi ilimaan yor xaw ma nu xaw ma nu am na xel mi ki Aziz yor xalaatu xelam xalaatu mu ci àddinaam xalaatu xel mi am na ko billaahi wala xalaatu mu woon ci àddinaam naka te c'est trop intelligent. mais li la métti daal mooy na toog suñ ko teewul dina ko teewul moom. li la métti ma Aziz. buñ kenn. Aziz Ndiaye. waaw bu ko téyul. waaw téye muur mu sëy waale. déet waay doom ji la bëgg ta bàyyi ci xolam mi bàyyi ko dina dem de fa Aziz xoolal mi ngi fépp doom ji la ñeewantal doom bi xam nga nante bu mayee doom xel lu ne la ci xalaat mais doom ji la mënta bàyyi mais danga koy bàyyi mu dem de il faut nga bàyyi ko mu dem nag Aziz sa doom tamit nit kees la tabakken la yor. lu neex la bëgg lu lu lu lu fu nooy la bëgg da koy bàyyi yaa ngi tëdd fu neex yaa ngi nekk fu neex bàyyi ko mooy mu nooyal boppam mais Aziz mi ngi si mariage ba Aziz mi ngi mi ngi ca Thiel la Aziz mi ngi ca jàkka ja Aziz mi topp la Aziz mooy topp bi mais Aziz mi ngi ci any time bi Aziz daal mi ngi ci lépp mais nag bàyyi doom xam naa ne dafa sori coow mais il faut nga bàyyi il faut nga def réalité bii nag nga bàyyi ko jot na nag il est temps soxla waaw jéem a tàkk xam loo ci mënati am moment yaa ci jàmm kese bàyyi ko nag mu sëyi nag bàyyi ko mu sëyi bàyyi ko ko may topp ko ba ci bi mi ngi ko topp ci mi ngi topp ci biir waañ bi. Ah, Aziz mu Aziz ak moom la Karax dem ñaak wax ci Aziz ki dem ba rek Ndiogou mbay bu dee ay xaritam jàppale Aziz ko ne ko maye nga ko jeex na mi ngi soo ko mayee. waaw maye yombul de. yombul de. Oh. yow ay oto mu am ay interpellé ay miiteeg ba maa toog déedéet yaa xase ko maye ko Ndiogou bu dee xaritam nga woo ko mu toog rek la. ñaak sama xarit sama lépp. ku baax moom it. ci seen li mu def li mu rëyee. tabax jàkka. nit ñaa ngi tabax hôtel. nit ñaa ngi tabax teere nit ñaa ñaa ngi tabax ay teere yu am ay gayndeek segg nit ñaa ngi tabax segg nit ñaa ngi tabax moom mu tabax juma. néegu suñu borom. dofuñu de. ku leen jàppee dof ñu ay dof lu baax lañ xam. dofuñu ñu ngi liggéeyal ñu ngi liggéeyal ci yoon te nit ñaa ngi wax te ñoom ñu ngi liggéeyal suñu borom. njaag moom mosuma ko mel noonu dafa baax. en plus dafa humble dafa correct xelam dafa baax Ndiogou Mbaye li dafa bëgg ko man dafa mën nitam Ndiogou dëj day dem. Mm-hmm. tuur famille day dem. Mm-hmm. laabaan day dem ngénte day dem. tuur day dem li tax mu waral dem boobu waralu xolam mooy yaatu police day dem loo xalaat caat na nit da mën sa nit caati na ci ci li mu nekk nga fekk ci ko ci. ci li mu nekk nga wuyu ko ci. Mm-hmm. ci li mu nekk nga taxaw ko ci nit loolee ànd nit nit du alal. nit du kër nit du téere nit pour nit la pour sa bopp la nit pour nga xam ne kii nit la nit da nga koy sa nit da nga koy mën Ndiogou Mbaye dafa mën nitam moo tax kenn du ko yéene sarax lu baax lay am hmm. nit boo baaxee suñu borom du la yéene dara mbay da lay ubbi lépp ci àddina ku baax la ku mën nitam la ku mën a sonn ci nitam xool ni ko ñoom Aziz def ni ñu ko fonkee ni ñu ko gëmee ni xamee mooy kan nit loolu la mel nit a nit sa nit da nga koy mën bëgguma nit nga jàppee nit di ko cof ndax ay détails yu ñàkk fede sa nit da koy téye pour suba. macha allah Pawlish ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati nga ko xam naa ne yaakaar naa euh, waxtaan bi am na solo loolu ndax it euh, saa su rek bu ñu jàkkaarloo man ak yow dinañ comédie waaye dinañ wax aussi li nga xamante ne moo di njëriñ euh, ci tàggatoo bi yan kàddu nga bëgg a partage ak sénégalais laataa ñoo tëj. ma wax la. su ma ma kaay ma dóor sama loxo seede yàlla. seeni xet seeni xet. nit àtt na ko caate yu jigéen ñi. barke alxuraanu karim. billaahi wallaahi. damaa bokk kenn xam nga du ma nëbb. sa bitig bi nekk sama kër may jënd ma daar may jënd si ngom ba ma ne am jaama si ngom loolu mm-hmm. li may sant ci xetam gi ak ma suul sama nday xale yee xasawaay <laughs> ak ma suul sama ndey xale yi village yi jigéen yee xasaw billaahi wallaahi xale yi nag ñoo xasaw nag xale yi talatuñ seen bopp jàpp na ni image rek moo bote nit wala jàpp na ni xalaatuñu seen kanam seen bote nañu xool te billaahi wallaahi xale yi ñoo xasaw ndax xale yi du xale yi duñ sangu set te dañuy def rapport xale yi amuñu ovule amuñu gynécologue amuñu gynéco amuñu dara mais xale yi ñoo xasaw nag kii billaahi wallaahi koo ci gis mu yor oto bu rafet koo ci gis mu yor daan koo ci mu xam te ak ma suul sama ndey waaye góor na daa bëgg la dafa am góor ñoo xam ne bëgg. dafa bëgg ñoo xam ne xunu lañ bëgg il faut lu xasaw xunu am plaisir bu am dafa am plaisir boo xam ne dañoo bëgg xasaw ñii bëgg trop ñu dina bëgg xasaw am na ñoo xam ne tàkk xasawul ba mel ne géej gi duñu mën a def lu leen neex dafa am góor ñoo xam ne ñu bëgg xasaw te borom parquet ni ñu bari dañoo bëgg xasaw parce que dèjà parce que jàpp ne moo sangoo seen oto yi du jar ñu baree bor moo xale jigéen ñi oto yu ne borom parquet yi dañuy noos ci ñoom xale yi influenceur les oto la ñuy doonante seen biir te oto yi moomuñu ko dañ koy àbb te ba ñu ko àbb bu dee cinq jours la dinañ def ak yow rapport cinq jours ba te ak moo tax xale yi foo leen fekk bul sawee moo raw foos fu dugg ci duus moo raw nettatu parce que seeni saw xoola xale bu vert sawam nuy mel xale bu vert sawam dana cas cas xale bu vert sawam mooy raw mooy raw robinet ratatatata tuuf ratatatatatatat nga xam ne fii fu fu fu lii jaar Hmm. saw du saw du ko téye ndax xam na seen yaay di xool xale di leen yóbbu léegi benn yaay yóbbatul xale gynécologue ak gynéco parce que xam na ni seen doom yee raw géej ñoo raw teen ñoo raw deex te influenceur lépp xale influenceur yi yëpp influenceur nañ seen bopp yi si xasaw nañ amuñu gynécologue am gynéco te itam billaahi wallaahi yéen ñi nekk xale yi ndaw bu leen dugg ci influenceur bu leen xool li jigéen am ngeen teg seen bët bu leen xool li seen moroom yi am ngeen teg seen bu leen ko ñëwee ni ñu koy amee baaxul te ñun ñëpp a feebar billaahi wallaahi infection infectionnelle la xale yu ñu bare bare seetuñu te seen époqotaan doo mosoo gi xale bu influenceur ba def ni loxoom ne cim nii rek la ñuy feccee nii rek la ñuy feccee nii rek seen karo yi seen karo poqotaan yi yaraw tool amul benn xale bu yëkkati loxoom mu ko ci àddina yëkkati loxoom amul ci àddina ndax xasaw nañ xale yi tilim nañ seen xas seen awra raw laaj ndax xasaw non non mais putain de merde putain. Papis naa dem. ci jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf.